ngir waajal door gi ñu war a door liggéeyi assainissement te ñu war ko def fii ci Touba juróom-ñetti fan ci weeru ut gi ñu nekk Touba ca kanam ci kilifteefu xalif général des Mourides amaloon nañ ab saytu jëmale ko rek ci wër dëkk bi ngir xàmme liggéey yi ñu war a def. visite bi ñuy def euh, dernière visite technique la parce que fekkoon na depuis bi ñu waree ñu engagé ci jéem a xool naka lañ mën a def ba solutionner yoon yi dëkk bi euh, bi yàlla dogalee mu demee noonu nag euh, ci la dox ànd suñu ay ingénieur wër xool site yëpp ci dëkk bi waaye ñu tànn comme mënuñoo defandoo lépp tànn yi gën a intéressant jël ci lu tolloog vingt vingt sites yoo xam ne dañ naan ci lii la ñuy war a tàmbalee ndax moo gën a far moo gën a ñor ñii di ay jëwriñ te bokk ci Touba ca kanam ñu ngi àndoon ak ki nga xam ni moom mooy chef régional ONAS bu Diourbel ak ki nga xam ni moom mooy chef exploitation ci diwaan yi nga xam ni ONAS dafa am ay liggéey ak benn responsable bu bokk ci Ageroute ak ki nga xam ni moom mooy maire ville Touba loolu yi nag ci teewaay gu am yaakaar ci wetuk askan gi. travaux yi mooy ki ni ku euh, ku xam Touba xam ni am na problème mu assainissement te assainissement bi dafa doon loo xamante bi ne ni daanaka ci dëkk yëpp la. bu ñuy xool liñ ciy def ak liñ ci waroon a def daanaka ci 20 pour cent lay lay tool kon euh, gab bi bari na gab boobu bu fekkente bi ne ni bari na dafa am ay points yoo xam ne dañ koo jëloon te gis ni ne yi actuellement fi tool toll day màggal gi da ciy dugg ñu noon ñaar fukki point yoo xam ne moom la ñuy wër mu doon ay euh, route yoo xam ne ay trafic intense la ci trafic intention yi nag la jëloon pour que ni euh, jéem a xool yan solution d'urgence lañ ciy def yu durable ànd ci ak Ageroute ci ak ONAS ànd ci tamit ak euh, commune bi loolu la Touba ca kanam fas yéene def incha allah. durée travaux yi dañuy def am na ci loo xam ne dañ koy def fii ak màggal am ci yoo xam ne gannaaw màggal incha allah. danañ ci euh, continuer pour que ni def ko ci. ay jéego yu am solo ci wàllum assainissement moom la ñuy xaar fan yi ci dëkk bu sell bii di Touba di ay jéego yooyu dinañ dimbali askan yu baax a baax rawatina ci jamonoy nawet ak it dinañ dimbali itamit ñi nga xam ni ci jamonoy événement yu mag yi demee ni ko màggal Touba dinañ dajaloo fii ci dëkk bu sell bii di Touba. ci waxtu wu njëkk nag am na ñaar fukki point baay yoo xam ni xàmme nañ leen warees na cee liggéey lépp war toll ci ñetti téeméer ak juróom fukki millions. yilee jéego yépp nag mu ngi bokk ci benn plan directeur assainissement boo xamante ni si dëkk bu sell bi du tubaa moo ko tax a jóg ci at yi ñu jëm